travel on? No. They, they, they remove uh, the student from the school right now. It is only dumping. Walter, do outro estou. Walter, do outro é jàng asalaamualeykum wa rahmatullah yéen tan mbokki seetaankat deglu kat yi ñun la ñoo ñëwoon ak yéen tay ci City afias Programme di ban in Banjul Ya with eh, Sahil Network TV tay ji dafa amon lu important li nga xamne ne lañ bëggona yebane yéebaane nit ñi nga xamne ne ñoo nekk biir Banjul fini. nii ak sahil Network TV Neka fini si Independence Drive tey ñoo ñëwoon Johnson Wellesley ak Palden Koof dañ fa amoon lu yéeme li nga xam ne depuis fan yi nii yëpp ñu ngi ko xeex fan yi nii yëpp ñu ngee wax si affaire yi nga xam ne moom la nit ñi nekk di jànkuwanteel biir Banjul fii nii ndaxte right now ah duñ ne Banjul rek a miti de dëkk bi yëpp a métti fu mu nekk nii te am na ay moon si gannaaw dañ doon wax ne no more store in Banjul no more store in Banjul no magasin to Banjul because of soo bàyyee xel magasin yi stores yi yëpp jël nañ dëkkuwaay yi nit ñi biir Banjul fii amaatuñ fuñ dëkka te ku si sampa magasin ba pare su sampee néeg si kaw daf dee seer da gis ne dafa cost benn self bu nekk rek ay seven thousand dollars koo xam ne liggéeyuloo wala sa sarari eegut loolu naka nga foogee ne noonu nga war a loolu te ñun am nañ yaakaar ne ah, lii yëpp si liggéey kansul la kansul war nañ see taxaw lan seen booba wala physical planning tamit war nañoo jóg bàyyi xel yi nga xam ne mooy daw biir Banjul fii nii ba léegi because of soo bàyyee xel tey am na benn store bu ñoo sampa fii nii because of fii nii yaaga nañ koo jaay te kër gi nga ñaa gis nii amoon na ay fuur yépp si biir te ñi fa dikoon kenn mënut laa wax naka lañ toll because of ñun fii lañ daan foyee suñ taami xale depuis suñ childhood fii lañ daan toog si Johnson bi am maire yu fi doon jaay waaye tey jii nii depuis buñ génnee gaay ba léegi fii nii mi ngi mel ni wala ghost compound kuñ dëkkaatut fi leer na ma ne jine yeeg ñeneen ak ñeneen ñoo fi dëkkoon because of ku jënoon fii nii according to rumo buñ am su nekkee ne depuis time yaay jàmme la ba léegi kooku after dañ ko mujjee tëj mu jaayaat fii nii keneen soo ku mu fi jaay right now dafa pare pour def fi store te ñun lii kaas nañ ko booy si koñ bi kaas nañ ko maire yi si koñ bi kaas nañ ko ndaxte Banjul doo bàyyi xel right now dafa ndaw amaatuñ fi ay dëkkuwaay soo booy nag tey ñoo kaasoon lii nii tey ne ñoom pare nañ si lu nekk waaye building bii nii du mun a dem true waaye tey boo bàyyee xel building bi mi ngi dem te oo nañ fi suñ councilor si ñëw nañ gis ko even though suñ MP bi Banjul Central fii nii Mouhamed Ndaw ñoom ñëpp ñu ngi fi doon jógee tey rek léegi nii la fi jógee nga ñu ko bëgg laaj correction mi ngay daw correction yi ñu fi jëgé nañ ñi dinañ stop ñuy stop ba paré di liggéey ñu né dinañ stop ba paré ñu ngay liggéey ba légui ah booy nuñ de te wa koñ bi tamit nuñ ci li te amon na fi boy yo xamné fu mu right now dañ taxaw ne no more store te ñun dañ ko min because of wax kessé rek mënut ta sotil affaire yi so fokk nga wax nga ri ak nga xeex sax nga pare si lu nekka because of fii right now amaatuñ fi dëkkuwaay te yow tey jii suñ fi sampee magasin containers yooyu noonu mu yu mag yooyu noonu di ñëw jël si bagage yi wala di ñëw pour eb problème la xoolal tali bi tali bi am na seet yoo xam ne moto yu mag waruñ fee aw because of fii nii amoon na time boo xam ne weles defalee dafa bloc moto yi door di aw spaldin ko fii nii dama sun ah, lifin yi ni bloc yi nga xam ne moo nekk si tali bi soo loolu dafa over ñaaw xoolal fii nii fu mu nekk am mi ngi bloc moto yi suñ naree aw fii nii tali bi am na blocs yoo xam ne containers si wala trucks yooyu noonu munuñ fee aw suñ fi awee rek dañoo dama affaire yi soo ñun fu mu nekk problème boobu lañ am ba pare area bi yëpp xale yi ndaw ñoo fi dëkka ak moto yu mag yi nii nga xam ne duñ dee def ndànka loolu mun ta nekk parce que koñ bi fii nii dafa ndaw soo bàyyee xel ah boo yaa ngi nii de. boy ñom dañ mer de ñu ne no mangas no magazines in Banjul right now no stores in Banjul right now no store in Banjul right now boy yaangi ni tay ji dinañ interview boy gaay wax ñu lan moy sen idea si li nga xamne moy daw bir Banjul boy yaangi ni No more stars in Banjul. No more stars in Banjul. We don't have where to live. Wow. ok yan booy yi yan mi nga xam ne yéen a dëkk si koñ bi ñii ñu ngi dëkk ba central ñii dëkk ba not bugg a Banjul dem rek moo tax te ngeen taxaw fii yéen ñëpp te yéen ñëpp bokku lañ ay dëkkuwaay waaw soo tey lu ma amoon pour laaj leen yéen naka ngeen gisee stoos yi biir Banjul soo dama la ñaa interview ñaar ba ñetti nit ñu wax ñu lan mooy seen problème Banjul fini right now li nga nekk di ci deku way yi ak magazine si nga xamne mi ngay jël seen way yi nit ñi amatuñ fuñ dëkka be paré rent ya ngi ser tay ji rent yi da nga gis ben self ay 5000 7000 so yeen lolu naka ngeen ko gisé ak seen dundin naka la méttee té sa liggéey su fekkee né ñu la fay sarar bi égout lolu yow naka nga lolu so yow bro nakam. ma ngi fay. tour bi. Modou Moussa. Modou Moussa. foo di ka. ngi dëkk Welasli le so yow tey euh, lan moo nekkoon sa ité ba nga génn tey sa kayit ne danga mel ni kuy démonstrer la ndaxte gis noon nañ fan yële si gannaaw yéen a ngi doon def seen status yi seen euh, Facebook page si no to warehouse waaw in this city soo yow naka nga gisee loolu. point bi mooy foofu nga nekkoon bu yàggut nii nit amuñ fu ñëw dëkka te gis nga ñii di sampa city eh, store yi yëpp si biir city bi nii yëpp ñu ngi am seen dëkkuwaay ak seen famille ak fuñ dëkka te hence Banjul xale yaa ngi fii ñu ngi fii te ñu ngi fi war a magee ñu ngi war a nekk youth am um, the leader of tomorrows so the problem is da ngaa ñëw lis loolu fii rek la amee suñ city rek la amee soo génnee nga from outside nga ñëw without any qualification ñëwaa ñëw taw ñëwloo benn document sa xaalis rek nga amee ñu jaay la kër nga sampa fa lu la neex muy sa kër te nit a ngi fi mu ngee fay luwaas comme na ko waxee xaalis baa ngi seer mu ngee fay luwaas kooku dafa expect pour am kër in a future te mu ngi am famille fii doomam yi dañ moom dafa war a dem bépp génn àdduna doomam yi teg over fii temps boobu lu ñu fi suñu maam yi loon lépp mu ngee dem ñun suñ si jógut kenn du si mën a jog so step bii nii first step la government BCC especially dem nañ si am am council eh, city engineering bi moom si boppam moo war a njëkk a teg step for this finally so léegi yen boo lañ demee because of gis naa si suba boo ñaa ñëw yéen a ngi def délégation bu bari sax te ëppoon ngeen nii so boo lañ demee ñoom lan lañ leen tontu ak naka lañ leen approché bi ngeen ñaa ñëw because of digga naa ne am na si consulos yoo xam ne jot nañ ñoo tiit buñ leen gisee ne lañ eh stop lañ stop lañ so yéen naka ngeen gisee loolu noonu naka ngeen koo gisee. waaw because am um, lii dafa over jafe fii. ok nga youth si war a mobiliser seen boppa kenn mobiliser suñu gis nga ñun bi all our youth kenn mobiliser suñu ñun ñoo mobiliser suñu boppa dem xam suñu right fight for our right dem council pour complain loolu noonu tàngoor bu ñu demee gars yi uyu si nañ ñu ñëwee nañoo ñoom ba fii waxtaan nañoo gars yi kon borom kër bi ñëw na si boppam gars yi déggoo nañ si kaddu ñii ñu ne ñu may leen couple of minutes ñu pare si lii ñu stop stop stop bi ñun loolu la gars yi dugal si ñun waaw loolu mu ngi si. so, amna lenen leneen lu la bëggoon a laaj bala ngaa dem na foog nga ne lii nii because of bu ko gars di complain ne bu mu taxaw te fu mu nekk pilas yi door nañ di ko dóor ayoon rot si yëpp a ngi taxaw te ñoom gisuñ dara fu mu nekk lu dul sampa ko te booy fan yële ne li wëri woon nañ ba fii bu a xeex gars yi waaye est ce que foog nga ne lii am bribery booy nekk di daw si ron foog nga loolu. non anyway su amee daal waaye ñun right now fu mu nekk nii am nañ si yaakaar ne lii dina stop. because am nañ si ñu nga xamante ne uyu si nañ ñu suñ. suñ suñ suñ protest bu ndaw bi du protest sax waaye suñ fight up for our right buñ daw buñ nekk nii am na ñu ñu si uyu ñu nga xamante ne am nañ si gaay yaakaar teg suñ si tegee loxo dina stop ñooñu suñ si tegee loxo kii amatut fen fu moo jaar waaw pour ñun am nañ si yaakaar waaye muy fii muy feneen kañ go to White House loolu booy si Banjul yi ñoom ñoo jóg daxaw ne no to White House in Banjul